bëri na ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu yéen a kaay gi di enquête nee na am na kenn koo xam ne ñàkk na si bakkanam waaye nag réew mi quotidien nee na du kenn am na juróom benn ñoo xam ne ñoo faatoo niki démb si jàppante yi nga xam ne amoon na ci nawetaane yi doon dox ci ñaari équipe yoo xam ne ñoo nga dëkk tëngee ca yéen a kaay gi ne ne Gaston ba dañu ko mujjee taala am na si ñoo xam ne ay blessé garaaw la ñu amee yéen a kaay gi du l'observateur nee na jàppante bi nga xam ne niki démb moo am ca diwaanu tëngee ca fu ko waay nat dana koy passé am na lu toll ci fanweer ak juróom ñett ñoo xam ne am nañu ci ay gaañu kenn musu koo xalaata yéen kaay gi di laas ak vox populi ñu xëy fekk fa ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba nee na nag jamono ji maanaam nawetaan yi dañu koy dakkal fépp foo xam ne gis nañu ne am na ay jafe-jafe maanaam am na violence foofee nawetaan yooyu dañu koy tegade ci suuf yéen kaay gi di waa grand place xëy dañu xibaar naan ñu jàppante yi nga xam ne niki démb am na ci diwaanu tëngee ca maanaam sorewut ak li nga xam ne moo amoon ca stade Demba Diop ba lu toll si juróom-ñett ca nit ñàkk sa seen bakkan yéen kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci journal bi nga xam ne njiitu di président Macky fan yi ñu génn wax na ñaar fukki fan ak juróom-ñaara ci weeru décembre bii maanaam train express régional dina commencé daawa waaye nag kàddu njiitu réew moomee nag journal bi di Figaro ca diwaanu France daf ko weddi ba sa naaj waa ne na train express régional atum 2022 lay commencé daawa yéene kaay gi ne na en tout cas li am ba des daal dawuk train bii maanaam li nga xam ne jàpp nañu ko ci ay dot bëri na ba askan wi jamono ji sonn yàgg ñu wax ñu avril 2020 Mansour Faye fan yi nga xam ne moom la ñu génn dem na ci assemblée nationale di wax ak député yi naan leen train bi yàggatul dara dina daw waaye nag bi ko député yi daal maanaam sañaxalee ak i laaj daan nay wax ne wagon yi ci boppam jamono ji moom la ñuy def ay test yéen kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr maire bu Yoff bëri na nag loo xam ne waxoon na ko waa Yoff te ba léegi ni France daal ndax moom Abdoulaye Diouf Sarr programme bi nga xamante ni waxoon na ko waa Yoff bëri na loo xam ne respecté wu ko ci am na loo xam ne dafa mel ne daf ko fàtte ndax stade municipal waxoon na ko waa Yoff waxoon na leen marché bu Ouest-Foire waxoon na leen ñaareelu lycée waxoon na leen maison de la femme waxoon na lu jëm ci wàllum lii lépp ay programme la yoo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko diggoon waa Yoff te ba léegi ni France dali xëddeen du suñu kàddu dañu nettale ma ngi ci yéen a kaay gi de Le Quotidien yéen a kaay gi de Libération nan ñu scandale dëgg moo am ci kër gi di benn milliard ak lu fegg bi nga xam ne waat na wax na ne xaalis bi nga xam ne moom la ñuy wax maanaam agent yi poste la ñu ko lebal waaye nag loolee dara du ci dëgg ndax gars bi ñu ko enquêté gis nañu daal ne mbir mi nag xaalis la boo xam ne dañu ko tong-tong lebal ko ay entreprise yoo xam ne ñoo ngi ci réew mi yéen kaay gi ne na bëri na ay signature yoo xam ne dañu koo falsifié xaalis boobee nga xamante ni nag waa poste abale nañ ko gis nañ si ñoo xamante ni daal maanaam jamono ji nekkutuñ ci àdduna bi maanaam ñoo xam ne faatu nañu maanaam lebal nañ leen ca xaalis boobee yéen gi ne na mbir mi daal lëndëm na lool am na nag ab information judiciaire boo xam ne daan nañ ko ci ubbi kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu CBAO foofee nag lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci millions yoo xam ne dañu ko faa sàcc ci CBAO yéen a kaay gi de la témoin ñu xëy fekk fa Cheikh Abdou Bara Dolly nee na nag am na ay député yoo xam ne bu ñuy ñëw assemblée nationale dañuy guerre corrompre ñi nga xam ne ñooy député yi ngir nag ñu bañ a dal ci nga xam ne moo mooy ministre moom lañ dénk wàllum industrie moom day guerre ñi nga xam ne ñooy député yi yéen a kaay gi ñu joxoo dëgg la def ginnaaw cadre unitaire syndicat enseignement jamono ji nag ñi nga xam na ñooy waa SAEMS ak syndicat autonome pour le développement de l' éducation et de la formation ñoom fas yéene nañoo dem ci ab grève yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy ñu xibaar nan ñu front social bi jamono ji maanaam haute tension si la njiit réew mi di Macky nekk ndax jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal jafe-jafe yi bëri yéene kaay gi di L'As xëy duñu xibaar naan ñu mouvement Y'en a marre ñoom nag fas na nañoo amal maanaam ab mars fukki fan ci weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal coalition Yewwi Askan Wi da leen say jàppale ndax dañoo bëgg kilifa bu yaanaa maar génn ci kaso bi ndax ñoom dañoo gis ne ku ma am nday a ku mu amul nday moo am ci li nga xam ne mooy justice ci réew mi yéen kay gi di la soley ñu koy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ak variant Omicron bi nee na nag tiital gi nga xam ne moom la ñuy tiital nit ñi loole dañu ko war a bàyyi yéen kay gi di Sud Quotidien nee na comité bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci xeex coronavirus ñoom nag ñoo ngi dalal xelu askan wi ba pare nag di leen fàttali nga xam ne mooy mesure barrière yi yéen kay gi di Vox Populi xëy di ñu am na si trois cas variant bi nga xam ne moom la ñuy wax ci mi ndax ministre Abdoulaye Diouf Sarr nee na ñetti cas yëpp ña nga xam ne ñoom la daloon wér nañu ba ñibbi seen kër ñi nga xam ne nag ñooy waa institut Pasteur ñoom nee nañu ñett ñooñu maanaam ñaar ñu ñoo wér waaye nag ba léegi kenn ki dafa négatif yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu làmb ji baadu dafa négatif Papa Sow mi nga xam ne moom la ñu dóoroon am dënd ba bi toj Papa Sow moomee nag xëy na fàngam ci yéene kaay nee na nag xuutaayu góom bi toll na ci cinq centimètres nee na moom Papa Sow dina porter ji